ñu ngi ciy ñëwaat sax di sow lool lu ñoo tuddee big bang te bu dee ci mag ñi ñu di ko tuddee sunnatu fatq rotq waaw lu ko defee ñoom ñu ngi cee sow rek scientifique yi ñu nga wax rek ñu nga wax rek surtout dernièrement bi ñu amee météorique boobu daanu ci Union ci Russie ñu nga wax rek di soow rek ndax xeer yi taxawaalu ci asamaan dañu bare ah di jaaxle nag lu tax xeer yi di yegg ci di daanu si ci kaw planète bi waaw waaye fekk la wax naa leen ko ci suñu waxtaan ya passé woon waaw planète yi nga xam ni ñoo daan jëfante ak trou yi ak rotation boobu nga xam ni moom la trou noir yi daan def pour di absorber xeer yooyu le bi dafa demeetul noonu waaw kattan bi demeetul noonu suuf bi rotation bi muy def champ magnétique bi mën ñuy dimbale pour di éloigner yenn yi doole bi demeetul noonu waaw waaw ba tax na yooyu yëpp moo lay wane ni am na fu yëf yi jëm waaw waaw yàlla moo mel noonu boo jàngee suratu tekwiir daa ci mën dégg lu bare waaw bu nga defee ñoom ak seen coow rek ñu nga sow nangam nangam di tudd yoo xam ni bërki démb la waaw big bang bi asamaan ak suuf ñu di leen dàqali bërki démb la moo mujj waaw big bang bi jëkk yëngil xëy ba mooy bi yàlla di poqati nubuwa ak wilaaya waaw ndax kaana taarat état ratqa nubuwa ak wilaaya def nii te foog ñu taqali leen bu ci nekk ak trajectoire am ci nekkit ak ñu mu jëm ci ñoom waaw ah, yëngal rëy bu ndax ñaar yooyu seen taqali ko ñu toggati beneen bi ba mu am te mooy yàlla bëgg taqaliwaat risalaat yi ak xilaafaat yi te mooy li tax muy yónnee yonent yi moo tax bis bu ne nga gis ci professeur yi ñuy daanu te duñ ko yëg ñi ci daara ji lu ñëw rek ñu ne qaala nabi lu ñëw ñu ne qaala rasul te war nga xam ci ban jumla fi la qaala nabi war a ñëw ak ci ban jumla fi la qaala rasul war a ñëw waaw bu dee xaqiqiyaat yi qaala nabi ngay wax bu dee chariyaat yi qaala rasul ngay wax waaw waaw waaw waaw waaw luy tax nag genre big bang yooyu dafa bari yàlla doon taqatli ndax bu ci nekk ak réalité bu ci nekk itam ak la mu war a servir waaye bi ci gën a yéeme mooy wa jaxal naa min al maa'i kulla shay'in hayyin big bang bu scientifique bi diggante asamaan yi ak suuf yi ak bi mu tàqali ko particule ya ca bët ya ca jóge particule yooyu illaa gubaarun taara min qutri as-samaa wa min as-samaa'i min al umuuri awaamu moo tax xakamta sayr al xalq للهدف الذي عجزت بدرك طويه الحكام وطمع فيهم للناس إلا حائر ومحير كنا رب زدني تحيرا ñi ñi ñi gërëm bare nañu waaw ñi gërëm bare nañu bu ko defee yàlla di changé affaire yooyu waxoon naa leen daaw fan la héritage mystique ak héritage politique jóge ci yu dabbirul amr ak yu fassilul ayaat dëgg la wala dëgg la ah, waaw kay waaye transition mystique bi ak transition politique bi fan la jaar mooy keroog bi ñu dalalee xaqiqatul muhammadiya biñ ko dalalee basin mimara alxaqiqatul muhammadiya ñu jàngal dalal ko basin mimara parce que fatihatul kitab mooy umul kitab bu alquran mais muhammad moom mooy ummu kitaabil wujuud kon il fallait alxaqiqatul muhammadiya ñu dugal ko mu jàng baa siin mi mara baawam te ja boobu xam ngeen ko mais la ca tegu xaw siin bi nekk intermédiaire pour mim bi mën a servir parce que mim du benn lettre ñetti lettre la waaw ñaari mim la ak kon ñetti lettre la benn mim bi mooy pouvoir mystique yonent bi bu jëkk bi ñun bu mujj bi mooy pouvoir temporel bu aadam yonent bi ci miimam pouvoir mystique mu def transition ci yaa bi pour servir aadam wa kaana aadamu bayna al maai wa tiin waaw foofu la ko commencé di ko télécharger sur le plan mystique naka la pare Adam moom it commencé di ko télécharger waaw ah, sur le plan corporel kii ci ruuxaaniyam kële ci jusmaaniyam yaa bi assuré transition bi loolu tax yonent bi joué ñaari rôle xam nga booy seetlu techniquement wala électroniquement ci appareil yi ñu ñuy def caméra ak yi ci des wala ci wàllu télévision am na ñaari appareil benn bi mu ngi tudd transmetteur benn bi mu ngi tudd transcodeur transcodeur bi lan mooy euh, liggéeyam mooy bu fekkee ni dafa am programme boo xam ne par exemple ci PAL lañu ñu ko enregistré am beneen appareil bu nga xam ni nag système am du système bu paal te ñu bëgg mu jël programme bële te buñ ko ko joxee ci paal du am couleur bu originelle bu ñu bëggee mu am ko dañuy jël appareil boobu branché ko ci transcodeur mu décodé ko ci système am indi ko ci système mu appareil bi pour mu am couleur bu original yonent bi joué na rôle boobu ci digganteem ak yonent yi bi ci des mooy transmetteur transmetteur bu fekkee ni par exemple da am sa téléviseur ak sa décodeur ci biir salle bi te nga bëgg programme bi bi nekk foofu nga di ko seetaan ci seen foofu amul décodeur mën nga jël transmetteur ñaari appareil lay doon benn bi émetteur la benn bi recevoir la waaw émetteur bi mooy branché wu ci décodeur bi ci bi recevoir bi branché wu ci sa biir nekk bu la neexee nga di ko manipuler ci biir nekk bi te décodeur bi du jóge ci saal bi yonent bi joué na ko aussi ci diggante mag yonent yi waaw tax mu nekk nuurul akwaanil mutakawwina al-aadami xoolal ñaari baat yooyu nuurul akwaan al mutakawwina ba noppi al aadami mu boole ñaari pouvoir yi loolu tax eh. eh. kenn xamul lool lan la ndeysaan moo tax ci biir rôle boobu ak ci biir xam-xamam boobu ci la génne ñetti puissance puissance bu njëkk bi ñu tudde ko julli puissance su ñaareel bi ñu tudde ko parfum puissance su ñetteel bi ñu tudde ko jigéen xubbiba lii fi dunyaakum thalaatha an nisaa wa tiib wa qurratu ayni fi salaa waaye wa qurratu ayni fi la waxul bi solaa ñu bari fa la ñuy daanoo qurratu ayni fi solaa waxul bi solaa du julli moo koy def noonu ki mu jàkkaar lool te sunu borom yonent bi du julli mukk wóoru ngi jàkkaarloog boroomam ne cofeelam ci yàlla mooy dem ba bu jàkkaarloog moom rangoñ tab fii rangoñ day tab fii mooy qurratu ayni moo tax mooy puissance bu jëkk bi assola moo tax allah moo ko yenu ci basmala mu jógee ci def deuxième puissance muy le parfum mu jël arrahman muy wàllu ko parfum xam nga lu tax parce que parfum ku baax dana ko tuuroo ku doy dana ko tuuroo te du dara du tee xeeñ la muy xeeñ muy arrahman kullan nu métt كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ñetteelu puissance bi mooy annisa mooy jigéen mu jël arrahim mu yenu ko lu tax parce que ki yàlla bi la fonk muy nit ci jigéen lañ koy defare moo tax arruhum nekk cheikhu arrahim kon nag ñetti puissance yi ñooy ànd puissance su jigéen fonkeel falayam ku bëgg fonk nit te tereelu loo jigéen fonkeel ga day des moo tax suñu borom daf koy defaree bu ñuy def miraas jox góor ñaari cër jox jigéen benn cër ñu ni dañu xeeb jigéen yàlla dafay rey parce que xeeb góor a tax ñu jox ko ñaar xeeb góor moo tax ñu jox ko ñaar jigéen la ëpp puissance parce que ci waxdaani yàlla ñu ko séddee loolu buñ ko séddee ci fardaaniya waxdaaniya mooy unicité fardaaniya mooy singularité bokkul singularité boo gis dafay soxla pluralité nisf la te waxdaaniya du nisf moo tax Mariam moom kot mu mën a génne Isa te àndul góor mu jur ko laa wax parce que aadam dafa génne xawaa mais juru ko parce que ci fardaaniya lañ ko sédde moo tax foog mu am un complément moo tax rabbi laa tazarnii fardan <laughs> wa anta xayrul waarithiin moo tax jigéen mu ëpp doole puissance góor moo tax ñu jël arrahim moo ëpp yërmande pour mu gérer jigéen ndax lay génne ci moom la mu laaj dafa bare te mooy nit kon nag lépp luy xeetu fonkeel ak xeetu orma ak xeetu teral jigéen ko symboliser Haj Malick <laughs> lay ndeysaan dafa jox ko mu toog bu baax ok tabaarakallah ndeysaan jërëjëf bu tuddee xeetu cet yëpp dugg waaw ah, parfum moo moo indi njàpp mooy indi sangu janaaba waaw ramz la ramz la li nadaafa al kubra waaw te min al iman lu moom la yonent bi moo tax parfum juillet Moussa comment vas-tu ne nga def waa kër barakallah bismillah jox ko mu toog waaw wallaay ndeysaan ndeysaan wallaay ndeysaan et donc kon jigéen ñëw na mais mu nekk troisième puissance parfum topp ci nekk deuxième puissance lépp luy xeetu cet propreté yëpp yàlla dugal na ko ci biir parfum arrahman yenu ko waaw assolaa nag lépp luy xeetu cellete salaat symbolise ko parce que set kese rek doyul am na koo xam ni kuy kuy jëfanteeg moom lu mu bon bon am na foo war a yegg ci cellete pour mën a ànd ak moom mooy sunu borom waaw moom laa leen wax noonu ci yonent bi waaye ñi ko firi yépp daal ni eh, importance bi mu jox julli or que julli gi intéressé wu ko moom laa leen wax ni qurratu ni fi sola la wax waaye waxul bis sola jàkkaarloo ga muy jàkkaarloog yàlla nag te yëg ni yàlla sopp na ko waaye moom it sopp na yàlla sopp gu ëpp mooy ni siraatika taamil asqam sopp ba feebar ah, ba ja ibrahim inni saqim hmm? siraatika taamil asqam waaw walaay ndeysaan xoolal ma boobu waxin am nañu wax sax siraatika tamil aqwam waaye déedéet asqam la fa kayfa tunkiru xubban baadama shahidat bihi alayka udulu damci wa saqami waaw xubbi li mawlaaya adnaani wa asqamani fa kayfa ashku ila mawlaaya mawlaaya waaw ku sopp dëgg feebar rawatina ko sopp ku day ni sunu borom moo tax yonent bi du janloog moom mukk te toquram ngooñ bi tab tagul fii mooy qurratu ayni bi waaw waaw waaw bu ko defee ñetti yooyu ñoo yenu yëf yi moo tax bés malët bi nekk fatiha bokkul ak bés mala yi nekk ci suwar yi bokkuñu garaat bokkuñu garaat waaw lu jara xàmmee la waaw moo tax bari na yu nuroo te bokkul waaw looloo tax kon baatu juma laa ilaha illallah ñun juma benn rek lañ ci xam mooy bii ñuy demee ci jàkk yi waaye bala nga ni naam ne fa li fi téye diine ji ba nga tal juma lan la beneen jumaa la te mooy mooy jumaatul azminati azminati wal usuur moo tax bii juróom-ñaari fan rekk la muy semaine ñu ni ajjuma jot na mais bële asabul mathani mooy tax mu sotti juma bële looloo tax boo seetloo Isa ibnu Maryam bu doon ci sunu jamono ni terre bi demee ñu naan pôle nord ak pôle sud di wax l'équateur xattul istiwa Isa ibnu Maryam mooy xattul istiwa parce que diggante Adama ba Isa cycle bi foofu mooy at dawra al adamiya ak ad dawra dunyawiya diggante adama ba isa àdduna la ko yàlla séddi ak doomu adama ci isa la cycle bi jeexe moo tax mooy équateur bi yonent bi muhammad dugg ad dawra al insaniya dugg ak ad dawra al uxrawiya nit falu àllaaxira falu moo tax ngay xool alquran yépp bi bi mu yonent bi ñëwee insaan moo ëpp ci waxam wa tiine wa zaytun wa tuuri siiniin wa haada albaladi al amin laqad xalaqna al fi axsani taqwim nga bëgg laaj ni yàlla ni ko axsanu taqwim ni koy dégg mun la at tiine wa zaytun isa bnu mariam taxaw wa tuuri siiniin muusa bnu imran taxaw wa hada al baladi al amin makka muhammad taxaw boo xoolee ñetti ñi xam ni laqad xalaqna al insaan fi ahsani taqwim waaw moo tax kuy roy royal ñii nit rek nag mujj gi moom lay waxal doomu aadama période am jeex na moo tax Mansour mi bis bu ne dinaa koy wax sax njaboot yi léeg-léeg bu ñu jaaxlee di waxtaan ba ci yàgg ma ne ko Mansour de doon na def bu ñu ba ñuy jógee ci sunu euh, gànket ga euh, lu ñu wax mu ni cëy ibnu adam cëy ibnu adam wax na dëgg ndax ibnu adam it kenn xamul lu mu doon waaw moo tax foog nga gedd boobu nag dellu ci insaan nga ngedd boobu dellu ci al insaan insaan nag du xëy xëy rek sotti dafa am fu ñuy jaar ak moom di fa jaar ak moom marxalatan baada marxala waaw ba mu yegg fi mu fi mu yegg waaw innaka kaadixun ila rabbika kadxan fa mulaaqiih lu dëgg waaw looluy tax kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi moom ci la yàlla ubbee al ahdu al uxrawi ak al ahdul insaani tax mu nekk al fatix li ma uxliq fatix li ndax li mu wubbi waaye xaatimit li ma sabaq ndax li mu tëj moo tax foog ngay xam nag ñett yi mu boole wala ñeent yi sax bu bu la ci neex ban la ndax ihdina siraat al mustaqim la wala wa yahdiyaka siraatan mustaqiman la wala wal haadi ila siraatika al mustaqim la bu mu ci mën doon ñeenti yëpp bu ci ne garaatu boppam la moom Muhammad waaw moo tax siraatika taam xoolal ma loolu siratika tam waxoon naa leen ko ci gàmmu gi tamamiya ak kamaliya lan mooy seen différence waaw ah. parce que ndeysaan kenn mësul gis loolu fa tabaarakallah ndeysaan gis nga at tamaam laazim la ci xaqiqa al kamaal mutaaddi la noonu nag nga leen di xàmme ki ñu sedd ci tamaamiya sañ na téye li mu yor mu yem ci moom mu singulariser ko mais ki ñu yónnee ci kamaliya sañul téye li mu yor foog mu jox ko ñi ñi ko yàlla yéene moo tax mu taaddi la niamati wa raditu lakum al diina moo tax nga gis wax naa leen ko ci gàmm gi yonent yëpp kenn ku ne da nga ñëw rek ñun la sa yëf a pare na mais yonent bi déedéet parcours la waaw parcours la mu am fu mu jaar perfection ci perfection bu xëy ñu soog ni ko ak meltu waaw ba tax na ku gis la rek bul wax ay karamaat njëkkal seet fu mu jaar ba noppi parce que dañuy wax ni ku ne man nga tricher ci lu ne sama mbokku mële xaaj bi li pay bii daf daan wax ni man nga def lu doy waar nëbb lu doy waar la waaye résultat ba muy jur nag mënoo fexe ba nëbb ko ndax ajuwul ci yow waaw wax bu am solo la ba tax na nit mën nga ci lu ne ba mu des ci ñaar mënuloo tricher ci xam-xamu yàlla mënuloo tricher aussi ci cëru yàlla yi ci des yëpp nag yàlla may na la nga nax ci nit ñi mais ba mu des ñaar yi xam-xamu yàlla la lay waxloo mais nit ñi xamuñu sax lu xew yàlla dafa gis ñetti xaraf ñuy ñuy fecc ñetti xaraf ñuy fecc ci xuruuf yi mu bind le vingt-huit lettres waaw yu ak lettres sacrées yi mu tuddoon les quatorze yi nga xam ne ñooy alimenter la lune ku defe ni la lune scientifiquement yii ñuy wax rek c'est du faux problème waaw xuruuf yooyu ñoo koy alimenter mais xuruuf ñeent yi des bu ko defee nag bu yeneen fukk ak ñeent yi jeexalee ñoom pare nañ ci ñoom xuruf yi ñu toog di xaar beneen xoolal loolu bu ko defee nag weer wi ñefee duñu xam ci lu mu ne ñi fii duñu xam ci ñaari fan yooyu fan nga ñu ñi fii duñu xam fu mu ne moo waral ñu siilu xamuñu ndax nim ko man ci xuruf xaabi it yàlla ni ko lu tax ngay fecc ma ci xuruf xalq te nga ca tur looloo taxoon aadam bi mu nekkee bayn al wa tin te gis ci arche fépp tur muhammad nekk fa mu ñaan sunu borom ni ko tur bii ma gis bu ma sañoon ci sama xeet am ku ko tudd waaye fekk yàlla ko jiitu miim bi jëm ci beneen miim bi laa soo xam ni muy ñaan tardé ndax kooku décidé na bu yàgg ba tax na wax la ku nekk ak cëram yonent bi cëram ëpp na moo taxoon ma wax leen ci gannaaw leen yonent bi du séenu lu yonent ak ndax séenu lu ñu aj dafay fekk nga taxaw boo gënee kaw lañu aj doo ko séen kon nag kay fa torkoom bi hmm? yaa samaa maa taawalatha samaaw hmm? lam yusaaw fi ulaa wa qad xaala sanam minka duunahum wa sanaawu هذا من ربي tax nag wattu pouvoir boobu mu yor moom Muhammad ak aljumaatul kubra boobu ñu ko jox 30 سنة ak semaine bi ak juma ak dahr wal asr bokkul moo tax mu garaw parce que bu ci am maanaam juma bu ñëw ba beneen bi war a ñëw fokk yéegoon ci mimbar bi day wàcc keneen ay xut waaye balaa xutba balaa xutba ñu def évaluation moo tax yowmul furqaan lay doon ci moom tari na alxuraan fu nekk de waaye bu bis boobu jotee mu war a wàcc mimbar bi yowmul furqaan lay doon ci moom te mooy ñu def évaluation wa rabbuka nag aalamu man dalla ci moment boobu kenn ku nekk danañu def li ñoo tuddee seen appareil boobu waaye nu mu tuddati seen appareil yu bees yooyu ah scanner te kat scanner bi yëpp yëpp yëpp yàlla soxlawu ci dara ci sa yaram sa xol rekk lay xool ndax dëggu na wala sa xol a ngi sikki sàkk jeex na waaw lu defee lu ñuy note ñu note ko waaw waaw keneen ku yéeg soog a yéeg waaw pour jël mimbar bi looloo tax yowmul furqaan boobu ñu di ko tudde alqiyaamatul ndax sa yujzihim wasfahum la wax innahu xakimun alim bokkul ak ëllëg ñuy seet nag bakkar boo def ak boo deful ak lu tey loo def ak loo deful ak bokkul bi melokaan yi nga diriger nit ñi la seet ndax melokaan yu apte la pour ànd ak risaala bu tollu nii wala déet waaw loolu mooy tax pour mu bañ a nekk lu gratuit loo tax yonent bi bi muy dem ci al isra wal mi'raj ci bi mu nekk ñaari visite visite bu officielle ak visite bu officieuse visite bu officielle bi mooy moom ak escorte bi mu àndal ah wazirahu jibrilun wa mikalu ithraw waaye سبحان الذي أسرى وهم بعبده ده سبحان الذي أسرى بعلمه ليلا من المسجد الحرام الغيبي إلى المسجد الأقصى البشري traité woon nañ ko fi qabla al wara faala fa yonent bi doon defee sujud ba mooy al masjidul xaraamul xaybi waaw ila al masjid al aqsa al bashari mooy wa fa ida sawaytu wa nafaxtu fihi min ruuxi fa qamu lahu saajidin fa malaaka yi doon sujud la aadama mooy al masjidul aqsa al bashari luy tax ñuy seet nag ci biir ñaari xibla yooyu la maa ngi koy wax mbokk mi léegi ñu ciy réew ba bëgg dee ci oto bi waaye nga léeg-léeg nga gis ci xujjaaj yi ku ñu dem màkk di nettali nag ba ñu nettali waaw ñu dem place sàngam ñu dugg fii nangam nangam waaw boo te ñu dem nag ca Kaaba ga ñu bare du ñu seetlu ni ñoom musaafir lañ est war wax ni ñoo ñoo ñoo muur amul suñu borom ak xijaab bu koy muur amul xijaab bi du pour suñu borom pour nit ki la nit ki am xijaab mais yàlla amul xijaab waaw bu ne subhaana alladi asra bu waxoon bi nabi bi nabi yihi rek àdduna tukki kon day mel ni ci yonent yi la yem waaye bi ne bi abdihi rek ku sa ubudiya yeggati fenn fi rek bu la neexee nga def isra looloo tax nga gis ku dey ni sa yit cheikh ak audaasam mu wax ne alu yestalzimu wa turandoom moom ci seen big bang ba big bang bañ doon defee fatqu ratq ah? bayna alxatmiyati walkatmiya li tax ñu koy wax maktuum parce que moo nekk sayidul xuraba bada diinu gariban wa sa yacuudu gariban kama bada fa tuuba lil xuraba kon ka nekk sayid al xuraba huwa al maktuum pour wax la kon toujours responsabilité âge amu ci solo dégg naa bi sax benn mag bu ko wax waxin gis nga waxinu aada yooyu lu mat di wattu la mag dina toog ci taatu garab xale yéeg ci kaw mag ma gis lu xale ba gisul ma ni du xale yépp ana xale yuy toog ci taatu garab mag yéeg xale ba gis lu mag ma gisul parce que waa ataynaahu alxukma sabiyan kooku irjaau nihayaati ila albidayaat la waaw waaw ba tax na résultat bi rek mooy farata bi mu dellu ci li góor gi ma sa nettali ni Ablaye Fofana moo ko ko mas wax ndax nee na dañu def def gouvernement bu bees jox ko postu ministère de l'information nee na mu ñëw ci sëñ Cheikh sëñ Cheikh ni ko waaye yow ministère bi ñu la jox dafa tuuti mu ni ko sëñ Cheikh waaw mu ni ko ministère du tuuti ministre mooy tuuti waaw mu ni ko waaye am na koo xam ni bu màggee rek lu mu dugg yóbbaale ko waaw ba tax na kon am na loo ni ne bi amu ci solo mais matirité bi rek boo amee la ca des amatul solo bi ci des mooy sama u shurta cinquième classe bi mooy juróomeelu asamaan bi na moo fa nekk comme professeur pour jàngale wàllu état major affaire état major wa zaadahu bastatan fi l ilmi wal jism am na responsabilité boo xam ni ku ko yore surtout war yore arme te arme amul xel gis ga li ma mës a benn journaliste wax ko ci ci ñiy def reportage télévision yi mu ni la caméra ramasse mais c'est le caméraman qui choisit caméra bi day def balayage rek mën na jël image bu ne mais bu ñu demee ba war a génne caméraman bi ak collaborateur yi mu am yépp ñoo war a seet li war a génn ak li warul am nga léeg dinañ toog fii waxtaan am waxtaan bu nga xam ne walla loo xam ne passage bu nga xam ne warul génn fii ndax jataay bee laaj ñu génne loolu mais bu demee bay génn ci public bi dañu war a censurer loolu da ngi fàttaliku bés pour wax la jàngal nañu lu ne dama daf ma woo ma ñëw mu woo benn kilifa mu ñëw mu ma dama la doon dénk diw na nga ak moom te na ko jàppale te na ko xelal mu ne ma bu ma jógee nag nga yónnee ma seen équipe technique bu daayira bi dafa am benn enregistrement bu ma bëgg def ma yónnee ko équipe technique bu daayira bi ñu defal mu def enregistrement bi ñu war ko yóbbu ci rajo ak télévision yi mu ne équipe technique bi bala ngeen ko yóbbu yóbbu leen ko ci Moustapha mu déglu ko te wax ko mu seet ndax lépp wër naa génn walla déet ñu indil ma kaset bi ma réécouté ko am ci passage bu ma wax ni nañ ko dindi ndax nit mën na ci bàkkaar te moom li mu wax xam na ko xam nga wa ma qadarullaha xaqa qadrihi ba ci nitu yàlla yi def ci am ñoo xam ni loolu seen seen nattu la ñi leen xam dëgg-dëgg barewul te li ñuy wax dañ koy teg ci teguwaay mais nit ki gis nga moom lay wax nit ñi dafa am xam nga keroog biñ ne Sëriñ Mansour nelaw na xam nga Sénégal rek li ñuy wax euh, euh, sareet bu bu bu jiitoo fas coow lee bari man fekkuma fi sax maa nga nekk ca Paris waaye teewul lee xew yépp à la minute SMS yaa ngi ñëw sama responsable yi nga xam ni ñu conscient lañu lu ñëw rek def nañu analyse yónnee ma SMS ba ma dégg nag ñu ni dafa am ci micro trottoir ku ñu doon laaj mu naan waaw Euh, Cheikh Tidiane dama dégg ni moom kenn du ko gis kenn xamu ko te am na loo xam ne kuñ ko dénk danga war a génne nit ñi di la gis ma ne waa ku ko wax ñu ma micro trottoir man ko nit ñi amee responsabilité te conscient du ñu waxee ci trottoir waaw du ñu waxee mukk ci trottoir waaw te wax naa leen fii léegi kat mi sayyidul xuraba am na koo xam ni ba muy def loola booba nit ñi juddooguñu waaw ba tax na nit bala nga koy waxal rek xaaral ba xam ndax yow agg nga ci dimension boo waxee ci moom waaw waaw waaye waxi nu mbedd am na ñu mu jëmul ci ñoom waaw moo tax ma dindi nag passage boobu ndax bañ nit ñi bàkkaar ci waaw bi ma demee it ma rendre ko compte ne ko passage sangam duma ko dindi ndax nit ñi seen dégg dafa sorewul mu ni ma man sax dañu dem ba noppi rek sama xel dellu ci moo tax noonu nga def sax noonu la baaxe waaw mooy ma ndax Sénégal euh, nit day alku ba noppi alagaale ñu bare waaw waaw loolu mooy tax nag toujours nit ci wàllu homme de loi surtout ñuy faral di sol uniforme dafay laaj ñu yar seen xel ba noppi sog a duufal seen yaram zaadahu bastatan fil ilmi d'abord wal jismi soog a ñëw loolu taxoon góor gi mas wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa dafa nekkoon ci priorité mooy mu yar soldat moo ko gënal mu taal xale ndax bu ñu yar mën na régler lu bare mais ku ñu yarul xel mi yëpp ci fusil bi rek la nekk te nag il faut faire attention il faut faire attention pourquoi parce que yow fusil bi nga yor nga xam mais ki nga seqal moom ban fusil la yor alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil alam yajal kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tayran ababil bu doon ci sunu biir jamono mooy avion furtif yooyu américain yi di lancer seen missiles yi et pourtant léeg-léeg ñu ñu ñu seen cible ñuy wax ay dommages collatéraux ak yu kenn mësul dégg mais avion yële ñoom du ñu seen cible jamais wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi xijaara boo ko firee xeer rek doo dem ay munition lay firi waaw ah. moo tax boo yoree sirru bi dañ lay laaj ci cartouche bi nga yor chargeur bi nga yor est-ce que bu cinquante nga soxla walla bu cent sirru suuratil fii chargeur bi nga yor bu cinquante la wala bu cent fa jaalahum ka asfin maakul yëpp yëpp seen sirroo ngi fi ak seen roo moo tax am na ñu xam ni kenn du leen tooñ seen kàddu mën na guddee àll du fa fanaan keroog ba ñuy nekk ca prison ba te góor gi mu bindee taxam boobu ni ils vont tous payer dafa woon nañ ni booba la mais ba fii ñu toog ñi ci seen yoon nekkul woon sax il paye tax il faut faire attention ndax musiba du yem ci boppu boroom waaw da am na koo xam ni bay boo nga bàyyi ko rekk ci ne ko yàlla binde comme tooñu la bul ko tooñ waaw waaw wa tabaarakallah ba tax na wa junuudan lam tarawha <laughs> wa junuudan lam tarawha billaay ndeysaan cheet tit tit yéeme na de ndeysaan dañ ko bàyyi noonu sax moo tax boo jógee ci boobu nag ci wàllu soldat loolu taxoon muy wax moom góor gi ni Napoléon Bonaparte denn ba bu muy faatu déception bi mu am moo di li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam réussir la bëggoon réussir te mënu ko te muy yar ay soldats yu amul caserne dak na ci lu ne surtout bi mu nekkee Égypte mais mënul fexe ba réussir ko kenn xamul ay soldats am fu ñu ne et pourtant bu ne tey la rek doo xam fu ñu jóge ñëpp daje si waaw moom nag philosophie boobu yonent bi réussir moom Napoléon xaw na ci rey boppam waaw parce que yorul yarul ay boroomi uniforme ay boroomi pas-pas la yar borom pas-pas yu nga xam ni kenn du ko ne fa nga ne buñ ne yonent bi soxla na rek soxlaatuloo dara mais bi ci ëpp doole moo di sens de responsabilité bu mu def ci ñoom bu ñu masaan di waaj pour dem xare mu gis ñuy ñaan shahada daf leen di jéppi di jëm xare di ñaan nekk martyr mu jéppi leen mun leen mais yéen yéenay kan naka ngeen di de yore mission bu toll nii di dem ci lu toll nii di ñaan di fa des ñaan leen yàlla gunge leen ngeen ànd ak seen pas-pas def seen farata te dellusi si seen mission ah waaye ñaan shahada mu ni ko kooku kooku alxaafiluun rek ñoo koy def waaw waaw pour wax la ñoom li ñuy viser ak li nit ñiy viser bokkul moo tax toujours ci sixième bi te mooy wàllu magistrature mooy bi gën a garaaw ci affaire yi te moo di ñi ñoo tudde ni ñooy àtte nit ñi parce que li li ngay gis nga mooy li góor gi ma su question ni ni est-ce que magistrat yeeg avocat yi seen robe yi ñuy sol seen nécessaire surtout baatu robe <laughs> ah waaye leen ma dama gisul woon sama mbokku mbokku mu wallaay sëy cër yi na nga def ak coono gisuma ko li lay. wax na ma ci moo wax ni ku am gan yokku reer te ñii ñëpp dañ di ganu soxna Kiné di ganu sëriñ Babacar Kan bii di sunu nijaay di ganu ñu baax ñi fi toog ñëpp waaye ci biir gan gi ñu nekkat boroom gër waaw ndax nu duyuufu wa anta rabbul manzili waaw daf di sunu wëllëre bu bu yéeme sax waaw moom shérif bile waaw ay sànn dañuy tudd maam cheikh bi fii ci kër gi fii waaw sëriñ Pape Malick mu ngi toog sëriñ Mansour mu ngi toog tout la famille ñu ngi toog sëriñ Mansour am nu mu yi kenn xamul lan la li ñoo tuddee télépathie sëriñ Mansour ni dañu koy tudd introniser ko ci fi doon tuddee sëriñ Pape Malick mu ngi toog dama ne ah sëñ Mansour moom li mu wax rëy na di tudd ko introniser ko intronisation dafa rëy noonu Chérif Sall bi daal may bokk benn cadeau benn boîte ma xool parfum bi muy Guerlain ñu bind ci héritage <laughs> ma ni kon télépathie la man maa ngi doon tiit li Mansour wax waaye mu jox ma boîte bi mu confirmer li Mansour doon wax ma ne ah, sutura yàlla yaatu na waaw ma tax na tubarkalla de di sunu lépp tubarkalla yàgg nañu di seq waaw mu nekk lu bare ci ñun ci cër yépp fa tabarakallah ni ñu ko waxee ci ñu baax ñiy toog rek waaw def nga xam ni euh, li ñu naan ku santul nit doo sant yàlla waaw ah. moo tax ci wàllu magistrature boobu la surtout ak genre robe yooyu ñuy sol te góor gi nee na ma posé ko benn avocat ni ko ndax sol bi ngeen di sol ah, robe yi ndax doon na ci farata nee na ko wallaay tubaab yee ñu rey rek ñoo fexe ba seen habitude yu amul solo yépp ñu jox ñu ko nga xam nga ne mag ñu toll ni ñun solaay robb yu yu yu ñuul yu xonq ak yu ñuul ne ko njulli <laughs> ah ngeen baal ma bala may yeggale de de xaw ma ne woon soxna Safiya mu toog nii dafa fekk may nekk ci biir développement bi wallaay ndeysaan moom dafa di sama xaritu bopp di sama ciru bopp waaw ah, léeg-léeg euh, buñ ma bañ bëggee tooñ sax ci moom la jaar waaw ah, ndax dañ dañ ni dafa amee sama caractère waaw waaw RM RM rek la yow RM RM waaw wala sëñ Pape Malick di ko tooñ sa na baas di ko tooñ waaye fekk ni ku nekk ak cëram waaw ni soxna Kiné bii nekk sama jër noonu la soxna Safiya bi nekk sama jër wa tabaarakallah ma ca gannaaw maa nga ca Paris soxna Fatima bi yónnee ma SMS ni ma soxna Safiya mu ngi lay nuyu mu ngi lay bàyyi xel ma ni ko woowaat ko ni ko ma ngi koy nuyu maa ngi koy bàyyi xel waaw ngay dem rek nit ku la faale rek nga faale ko nit ku la fonk nga fonk ko rawatina koo xam ni sa jëru bopp la waaw ba tax na fa tabarakallahu ñu ngi koy nuyu bu baax tey rafetlu teewaayam waaye du ñu jaaxal ndax ni ko soxna Kiné moome moom it noonu la ko moome fa tabarakallahu waaw ñoo suñu ba Malick nag waxoon naa leen ni mooy suñu wayjur góor gee ko def waaw fa tabarakallahu ko defee kon nag bañ a jaawalee cër yi dafay baax ndax li gën a garaaw ci àdduna mooy àtti nit atte loo fekkewul ah te apparence trompeuse yi dafa te sunu borom sax bu yëggee ci ni ma yu ma yubaddalul qawlu ladayya def ca teg wa ma ana bi dhallamin lil abid mais parce que seen affaire bu bu ñuy dóor bu ñu jëlee décision ba noppi dóor pour wane ni décision bi jeex na mooy may ma yu baddalul xawlu la day mais pourquoi ñuy def loolu ba noppi cour de cassation di amati parce que mu dafa garaw waaw atte ah, loo fekkiwul te léeg-léeg nit am nattu yiñ ko war a mën a tuumaale dajeek moom ca barab ba moo daloon Sayyidatna Aïcha ba ñëpp mbamboo ko ku ne di soow ku ne di soow ba yonent bi mujj jaaxle am gers xamul lu muy def mu ne ko demal sa kër bay toog ba yàlla ba yëf yi mu dem toog yàlla it ni patt ndax bu teelee wax li mu bëgg mu feeñ du feeñ te am na ñu nga xam ni fokk ñu démasqué leen moo tax mu ni patt waaye gis nga keroog bi aaye bi wàccee pour seetal ko yaakaar naa wax naa leen ko fii ci waxtaan yi ci gannaaw ku nekk gis-gisam waaye bi ko Abu Bakr waxee ni ko demal nga sant yonent bi ndax moo tax yàlla seetal la dafa ko ni duma ko sant yàlla mi ma seetal lay sant am ñu jàpp ni dafa soofantal daraja yonent bi ñu ni déedéet martabatul waxdaaniya bi mu doon yéeg moo tax gisatul kenn yàlla rekk la gis waaw waaw nit dafay toll fu nga xam ni bu tolloo fenn fi boo bëggee mu gisati lenn li du ko gis li muy gis rek lay gis ba tax na boo ko amee ci njaboot wala nga am ko ci collaborateur wala keneen da koy xam boo ko xamul rek da ngay juum waaw waaw diw moom lu tax nangam di fekk na nekkatu fi mooy baat bi ma leen wax ci Abu Yazid al Bastami waaw bi ko mbokk mi ne Abu Yazid lay seet mu ni ko mayit moom lay seet te mooy moom te daje ce jàkka ja am euh, ku ko nuyu jaar ci turam moo xam ni Abu Yazid bi mu doon seet moom la mu ne ko te yow ma dajeeg yow léegi di la laaj Abu Yazid nga ni ma yow moom ngay seet mu ne ko waaw yàlla xam na ni Abu Yazid bi ngay seet newu fi mu ne ko fu mu ne mu ne ko dem na seeti yàlla te mu dellu si te bu ma sañoo nit du dellu si waaw ah. mu ne ko bu Yezid bi nga teseel nag mooy bokk ak yow cere ji di bokk ak yow ceeb bi di bokk ak yow mburu mi waaw loolu waxin la moo tax muy jara tey Serigne Cheikh dafa wax wax bu yéeme nee na di dëkk ak nit façon ba mu daan solo du changer façon ba mu daan lekk ci sa kanam du changer façon ba mu daan waxtaane du changer waaye nee bu ngeen toogee fukki at nga yëg ni rawe na la fukki at yow ngay poser wu question fu mu jaar parce que roox buy dem du tàggoo te nit mën na toog ak yow fii di wax ak yow fekk rooxam dem na moo tax toujours rekk bul ak sa xam nit ki ci li sa bët di tegu waaw ndax am na ñoo xam ni parcours yi ñu am parcours yi dafa bare waaw rawatina ci biir tariqa cheikh waaw boo gisee wali salaasilu gayru mu muttasilatun ila cheikh mag ñi di ko wax ci seen ijaaza yi ah que dinañ tudd parcours bi ñëpp xam waaw ma ngi jëlee ci diw diw jëlee ci diw diw jëlee ci diw diw jëlee ci diw di ko topp ba ci Seydina Cheikh ba ci yonent bi waaye bu ñëw paree nag ni la wali salasilu xayru dalik muttasilatun ila Cheikh donc am na ay ligne directe bu bokkul ak bu standard bi ah ma ngoog hmm? loolooy tax seen waxin yi boo xamul lu xew sax mën nga bàkkaar waaw xam nga laa xasati am mawridayhi tazuudu ni aw lal jarimatu taqtadi xusraani loolu mooy lan ah kartuma kartuma bay bay wuut a gagné ku wuut a perdre damay gagné laa wax ndax du donnant donnant gagnant gagnant la jeex na jeex na jeex na ba tax na je pense bien que la léeg nag dafa fiir ci turandoo bi façon bu nga xam ni man damay waaru sax mës naa toog ñuy waxtaan bees muy wax ci busiri ak burda ak hamziya ak yi ak ni mu réye ci nit ñi mu di ma wan nu busiri nekk surga ci turandoo waaw waaw wallaay ndeysaan waaw ñu ciy waxtaan waxtaan bu sore ndeysaan di wax rek turandoom ni ko nit ñi réere te xamuñu cëram ni mu toll waaw waxtaan wu sore wu nga xam ne da ngay mujjee sa bopp bi di def nii waaw ndax rek profondeur beeg ya ca aju waaw waaye dangay xam ne rek moom mi koy wax à travers lui ci ngay gëmee wax mi waaw waaw waaw ndax rek boo xoolee dimension bi ak façon bi mu la koy joxe da xam ni kii li mu lay wax téere yi binduñu ko waaw waaw yu mel noonu fa tabarakallahu ci ngay nàmpe ci moom waaw ci ngay nampé ci moom moo tax toujours magistrature ah ay wallaay ndeysaan billaay billaay billaay wax na dëgg wax na dëgg waaye ci biir namp boobu nag ak fayda jooju benn responsable Moustarchidine mu ma mu ma ko yóbbante ni ma ni ma waxal góor gi ne ko wa abayta diina dox fi la mustakbiran <laughs> nekk ñun mu sarchid yi ñu nga ca booba waaw waaw waaw ah, waaw bayte diina doofi la mustakbiran waaw waaw waaw ndeysaan nga tax na tubarkal la alaysa allahu bi ahkami alxaakimin waaw may may ko mu toog waaw ah. ndax dafa nekk ci tànk yi wut ñaareel ba ba ba ba la ragal. boo ko tuddee rek mu ni te àdduna tukki. bu ko defee ma ko may jël responsable mu ne mais ndeysaan waaye tabarkal la daara ji mu toll noonu ku amul lu dul ñu baax sa kaf sax du nekk kafu caaxaan ah, mu maasixun gayra xaqin maa ilayhi numi ma daan na tabarkal la kon nag xam bidaayaat yi ak nihaayaat yi dafay am solo waaw moo tax ku la ñaak moo la ëpp reer waaw ku la ñaak moo la ëpp reer ndax waxin boobu ñu waxee ci Muusa ak na yàlla waxee ci Muhammad walay xamal ni dimension yi bokkul ndax ki nga xam ni danaan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ñaan ko di xaar ñu nangul ko ko ñu romb ko fa fekk keneen naan ko alam nashrah laka sadrak waaw moo xam ne yëf yi am na boroom waaw yëf yi am na boroom waaw mhm. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ah dama may gande wallaay ndeysaan dañuy wax ni sëriñ Abdou Aziz si bu sëriñ Mbay Abdou mu ngi fi waaw ak sëriñ Mansour si bu Cheikh Oumar si bu sama turandoo ñoom ñëpp ñu ngi fi la xam naa bu ñu paree yooyu yëpp dinañ ci ñëw incha allah eh, ci cant yeeg nuyoo allah waaw kon nag bale bidaaya la waaye bii nihaaya la waaw lu nekk ak ka muy boroom waaw wa ajibtu ilayka rabbi li tarda ca Muusa waaw wax ko ba noppi yàlla yom romb ko fa wax ak yonent bi wala sawfa yutika rabbuka fa tarda moo xam ni yëf yi am na borom waaw waaw ibrahima jaar fi waxfir li xatiati yowma ddin yàlla romb ko fa janloog yonent bi ni ko li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambik wa ma taaxar moo tax lu nekk muy borom rek baye boo nga bàyyee ko ko waaw te du rattalee nag nga sabablu mais sabablu it foog nga xam foo koy teg ndax li ñuy wax ni ud'uni astajib lakum yàlla wax na ko ci alquran waaye nee nañu léeg-léeg nit di ñaan yàlla yàlla ni gaaw leen jox ko li mu soxla ndax baatam daf may tànqal xam nga boobu dara jaru ko di ñaan sa borom mu ni gaaw leen jox ko li mu soxla ndax daf may tànqal am na di ah waaw effectivement mais bien sûr mais bien sûr mais am na ci ñu nga xam ne du ñu soxlaa ñaan sax moom laa wax ci gàmmu gi ni yonent bi dafa fexe ba jikko remplacer ñaan ah ah ndax ñaan dafa manuel mais jikko dafa automatique ah am na ñoo xam ne duñu soxlaa ñaan yàlla faj seen soxla waaw waaw li yëpp mu ngi aju ci nit keek ni mu defaree boppam ak fi mu teg boppam waaw ba na kon nag eh, mu ngi guddi bu dee benn baat wala ñaari baat sax barkeelu rekk la ñu ngi jëm ci koor waaye itam li ma leen wax sànq rekk ci bi ñuy ubbi kiy gàttanu koor ak ki koor di gàttanu bokkul waaw waaw fa kullu nu mu ko waxeeti إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه آه آه ها boobu benn la des na beneen ah ida almaru saama an alxataaya waaw kay fa kullu shuhurihi shahru siyaami waaw kay waaw pour wax la lu ci nekk du jëmmi li ñu tudd mais résultat bi muy jox nit ki mooy farata bi waaw am na ñu nga xam ni danañu am jikko yi yàlla soxla ci koor te duñu woor waaw mën nañ ko am waaw waxin la maanaam dañ lay wan ni la du jëmmi weer wi rekk moo tax yëf yi jóg mais li muy def ci yow ak li muy liggéey ci yow ak li muy waajal ci yow bu dul koor it farata waaw waaw mais daan na nag ñu jëm ci ak sago jëm ci ak euh, tey jëm ci ak euh, sellal kenn ku nekk yéene a ca des yiw ndax li góor gi masoon wax ni baatu baal ma àq yooyu ngay gis bu yii di jub si mu ni kenn ku ne am na foo tooñee sa morom te la ko tooñi boo sañoon du ko yëg te boo sañoon mu baal la ko te mënoo ku ne nga ne ko def naa la nangam yàlla may la occasion bi rek bu ñëwee nga ne ko balmaax mun la baal nga ne ko bal naa la mun la bal naa la mu jeex waaw waaw occasion bu am solo waaw ndax cas de conscience baaxul waaw waaw ah, ak sentiment de culpabilité itam baaxul waaw mooy ci kenn ku ne boo toggee sa xol féex ci ni dencaloo kenn lu ñaaw ci sa xol waaw boobu doy na jaamu yàlla waaw nga tax na kon nag ñu ngi leen kon di déwénati di leen baal wax ñu dugg ci ci bismillah tey ñaan yàlla yeggale ko ak alhamdulillah te yàlla may ñëpp wér yàlla may ñëpp sutura yàlla may ñëpp tawfiq yàlla may ñëpp nag ubbiku aajo yi faju jaaxle jaaxle yi deñ waaw yóotu yóotu yi bu fekkee ni moo gënta gën ci sa njaboot yàlla indil la ko te coono ba du bari waaw ok ok waaw bu ko defee kenn ku nekk rek la nga xam ak la nga mën nga def ko waaw la xamul mënuloo ko nga bàyyi ko ko xamal ak ko ko mën mu def ko yóbbaale la